am nañ mbégte bu baax mbokk yi ak contentement bu rëy comme ni ñu koy defee saa su ne tey ñu ñëw fii nga xamante ne moom mooy Malika set si le grand champion muy bulldozer wax dëgg yàlla mu ne ci yi daral bi xëy na sax bu ñu paree moom mu maa maag joo ku ne mu jox ñu benn incha allah ndax tabaski bi fi mu ne moom la ñuy waaj jamono ji di ñaan ñëpp am xar incha allah waaye tam bëgg naa waxtaan ak moom ci actualité làmb waxtaan ak moom ci làmb jamono ji li mu sooxee ah, ak ci politique bu dugg ci làmb yi sax mënuñ cee ñàkk ah, ak mbër yi nga xamante ne fi mu ne ñoom la ñuy tuddee ay VIP xalab gi leen di xalab ci làmb bëgg naa ci waxtaan ak moom waxtaan ak moom tamit ci adversaire yi ndax bi mu bëree fa Farouz ba léegi dégguñ ko ak combat te war naa bëri ndax xale la dama koy bëgg rek bàyyi ko mu nuyoog mbokku internet yi ñu dugg ci waxtaan bi mbër maa ngi lay bëgg bu baax waaw maa ngi ziar bu baax baax baax Ameth di nuyu di nuyu sa cameraman di nuyu téléspectateurs yi waa Zarak Vision di ngeen bëggee bu baax a baax a baax santaat yàgg jiw suñu tuwi di sant sama ñaari waajur di ñaanal maire bi yàlla xare si àddina yi gën a kawe di ñaanal paa bi yàgg fi di nuyu famille omarienne bi yëpp di nuyu fii ko ma fekk tey ji mu Marika di nuyu waa Marika Pagaz yëpp xam nga di nuyu sama papa Ndiogu saw nga fekk ma fii tey si xar waaw xam nga rek ñu nekk si liggéey bi mooy loolu ku ne xam ne instant bi dëkk bi metti na dëkk bi tàng na xaalis amul xaalis cher na xam nga ñu nekk ku nekk ñu toll instant bi da nga yërëm sax saan bëggam njaboot yi parce que saan dañoo nekk si ay moments de difficile ku ne xam ne tabaski moom il faut nga jënd xar xam nga te gars dëkk bi métti na weer bi soogi na dëkk bi tàng na amul xaalis te xar yi seer na xar yi dafa seer sax si àll bi waxuma ak fii xam nga mais nag sant yàlla ñi ngi ñaanal ñëpp am xar ñëpp tabaski si kenn bañ am benn bor waaw ñu ngi bëggee ñëpp daal mais daral bi ñu la fekk nii euh, nga fiy jaayee xar dëgg waaye xanaa neen ko yombal nag parce que tabaski bi xam na li des bëreetul ay 4 jours rek 3 jours moo ci des. waaw non ñu ngi kii ñu ngi koy gérer daanaka mooy xar yi daanaka sax des bëriwul parce que xam nga tabaski bi moom mooy exemple bi xaalis amul xar yi dafa seet maa ngi ko jëndee fii ba Missirah te yi si gën a ndaw bokkut ak bokkut ak xaru jaay ko jaay daaye dàqu ma si dara parce que su ma ko jaayee benn cent quarante mille wala cent cinquante mille ma jëlee ko fi ba Missirah indi ko fii di ko xont boo bëggee xam nga loolu dàqu ma si dara maanaam pour gars yi rek xam nga ak mooy loolu noonu jaay naa fi sax ay xal cent cinquante cinq yoo xam ne maa ngi ko jëndee loolu cent vingt mille te yor naa ko fii ba yàgg xam nga xaw ñu si bénéfice wala ay yooyu noonu dañuy jaay rek pour bañ toog wala affaire yi demee noonu rek yaa xam ñu ko ku ñu xam-xam ne xam ci élevage noonu la demee daal. am na solo léegi dañuy dugg ci wàllum làmb. Mm, Bulldozer ku ne xam ne la ci làmb ngay def lu am solo sa combat bi mujj nga bëre koog Farouz combat boobu man jàng nga ci def loo si jàng. waaw ñoo mooy jàng ma si dara rek mooy bu ñu dajee daf daa war a bàyyi ma dem loolu rek bu ñu dajee dëgg am ji métti woon na combat bu métti gi ñu bëri man ak moom. parce que in na état in na man tamit in naa état bëre ko si ngor ak si jom yàlla may ma dem si koom maa ngi sant yàlla baax baax baax jàngat bi ma si am daal mooy que vraiment ràmb ga woon jeex na xam nga jeex na yàgg may na ma ndam si kawam fàtte naa ko maa ngi si keneen. waaw bu baax a baax a baax parce que tey jii bëreeg Foduz tey jii Foduz jiitu ma si ràmb foofu dem depuis 2011 ñu ngi bëre man boo xoolee fee 2016 gaa bëre xam nga su ma bëree moom te moom mu mujjee bëggee doomu daan ko parce que tey su ma bëree moom daan ko war naa mën a dugg si gars yi yee noonu nga kat. nga jógee ci euh, toogaay bi mi ngi bëgg yàgg de yaakaar wa mi ngi bëgg a mo dëgg yàlla mais nak sax jour ñu woo ma chaque jour promoteur woo ma di ma proposé may dégg avant xeyna adversaire yiñ may yiñ may yiñ may yiñ may proposer ñoo engagé wul wa gol la mo tax no bëgg na duma tuddu nak ay ben tour mo dëgg yàlla baax naa tudd ay tour mbeur mais nak ñu ngi ma doon proposé ay adversaire yu bari ño xam dañ samay morom gañ waye wax dëgg yàgg nak dama ngeen nakaw kaw man gàmb dafa jot tay jii ma avancer dem ci kanam jot ci adversaire yu baax yi xam nga tay ji ku ne xamna ne sama combat ak ak ak ak ak euh, ki num tu ñak jarignu mais si mom nga si mom nga dess promoteur bi bëgg nañ ko ñëpp bëgg nañ ko. ñak jarignu dal na la waroon waaw promoteur bi bëgg nañ ko ñëpp bëgg nañ ko xam mais si mom nga tagee wax deug yaaga sama digënde ak Tidiane fay tamit nonu si promoteur yi nga dess mais ñëpp bëgg nañ ko xam nga mais yenn booy may proposer mom wax deug yaaga genn na sugo bobu quoi. mom ak Pam Doy da nga genn ci mom ah, Pam Doy ay morom nga bu ñëwee ñu bëre loolu programme waaw ah, mom moom promoteur bu ñu ñu bëre kenn proposé wu moko na wax deug yaaga waaw mais buñ ma ko proposé tamit làmb ga ay morom gañ mën naa ko jël mais yeneen booy yi moom si ginnaaw moom dëgg yàlla. booy yan. non bëgg nañ de yeneen booy daal. bu bëri nañ ma il faut nga tudd tur nag. non du ma tudd seen ma tudd seen tur yeneen booy moom ngeen naan mooy loolu doy na sëkk wax dëgg yàlla booy nekk sam booy nekk si télé di ma tëkku rek. yan booy ñoo ne si télé di la tëkku. waaw ah, bëgg nañ ah bëgg nañ quoi su ma fi nagee gim rek mooy loolu noonu bëgg nañ quoi. ah bëri nañ. boy next tega bekek di di di di di tutu sama tutu itu konan sama di kentek builder zero komba kang naga mana nyal nyal lah sinyonya mau bekek kamnya itu bekek nyu fibiano komba no dah emang kayak rumah tutu tutu saya itu tutu mau rumah tutu ah hmm. memang vital mau mau wajar sama bob mau sedikit sampel mau ibare berdegi agak we can be passing juga kamu juga ibare mau ibare mau si alibi di ibare hamga mau ikut di sana jalan sekombang di gelo jawa no ibare makuk deh ah, luar lolo kooku moom doy na sëkk kooku moom bu kooku bu desoon si mbër ndigal moom bu desoon si mbër bu nekk du arrêté zagan ñu moom doo nga des si mbër su ma bëree wut moom du ma bëree ma bàyyi bëre ma teg ma ma ah, kooku dafa yabaate xam nga rek. fan yii paas dama fi def benn émission. Modou Anta gaaj ma si moom quoi ne ma nga ma ma ne ko ndigal comédien nga bëre ma comédien. mais comédien nga moom day wax gars yi di ko tànn bu defee émission da nga seera waaw waaw dëgg la mais mais man maa tooñ noonu ne comédien xam nga comédien loolu dara nekk si dafa neex ma tooñ ne la xam nga moom noonu wax na ko moom nee na moom gi mu xam mooy ka wax gars yi te ba pare man ak moom sax bokkuñu vision si gàmb moom sant bi moom moom moom xam ban feebar moo ko dal si gàmb muy tey jii moom day bëri pour ut benn booy bu siiw ñu fay ko si xaalis mu bëri moom xaalis koy ut sant bi waaw man nag dafa am fu ma teg sama bët te dama fa bëgg a yegg kon man ak moom bokkuñ sax yoon te ndigal même bu dul loolu sax maa ko raw si gàmb donte moom ma njëkk si gàmb nag moom ma njëkk siiw na mais si gàmb yoon bi ma jaar ndigal jaaru fa sax léegi yow da nga ne ko comédien léegi loolu loolu kese tax nag bëggoo bëri moom mu def émission xam nga di si wax ay wax yu ñaaw quoi di ma si jàll ay baat si wax ay wax yu ay wax yu tegg ay wax yu gayonte sax mën naa ko tuddee parce que tey jii ndigal loolu fan la woon parce que tey jii ah non bi mu def moo di anta moo Gaston production moo ko woon émission si bagage bi noonu mu koy muy def naan ay may wax mu ne may wax booy góor jigéen boobu noonu naan daf may tëkku xam nga ay baat yu ñaaw ndigal waaw émission baa ngi si kii bi ay baat yu ñaaw yoo xamante ne nii tey jii mënoon naa ko sax porte plainte loolu moo wax noonu loolu moo wax noonu mënoon naa ko sax dem porte plainte waaw moo def waaw loolu émission nga def di moom moo def émission boo ko émission bi seetaan naa ko xam nga mu naan ay booy boobu xam mel ni xam rek di wax ay wax yu wone ay wax yu tegginewul yo xam man mënuma sax jaarat billahi wagaay wa taala en pegay ni émission yow nga nek mak ñu ñu jag ñu timagal micro nga wara wax lu am njëgiñ yaa ngi dégg nekk fa di wax ay wax yu ñak fayda yo xamanteni da ngay ñakal fayda man digal bu defon ci mbal duma beure man sayyidina muhammad mais lu waral mais lu waral mu lay tuddee borom ñaay touré yu mel non non non nee xam nga rek no xam nga gaay comme ça nit mën nga ko gis ni non waxul lool sax pour dara xamna da ko wax pour tooñ rek yaa ngi deg xam naa ne daf ko wax pour tooñ rek mais wax ko pour dara waaw mais baat bu ñaaw ko quoi tey jii mënoo fekk man nga naan noo mbër ki xam nga koo xamante ni maanaam nuruwul sax mbër na man nuroo mag mbër yaa ngi dee nee ma xoogee comme mooru mooru buy soog a ñëw <laughs> moo tax ma ne ko comédien nga waaw noo ko demee mais bëriwu ma moom wax dëgg yàlla parce que moom kooku moom wax dëgg yàlla doy na sëkk am na solo tooluwaay làmb jamono ji noo ko gisee soo xee làmb fi ñu toll nii am na ay jafe-jafe yu bari de waaw lamb am na ay jafe-jafe c'est parce que mbër yi léegi ku jot ne da ngaa bégese si mbër yu mag yi parce que tey ji yow yow yëpp yow nga nekk mbër bu mag nekk professionnel ah ñëpp xam nga si lamb nga nekk mbër bu mag tey ji lamb dem ba des 15 jours yaa ngi dégg nga naan da ngaa bégese lamb bu desee 15 jours mbër waratoo bégese boo bégesee yaa ko tey lamb booy bëree nga am combat surtout ay professionnel nga nekk professionnel lamb combat bu desee 15 jours waratoo bégese mbëri liñ blessé da nga koy ŋaañi daal. non bu baax baax baax wax dëgg yàlla ku xëy ne da ngaa blessé def certificat médical yóbbu loolu dafa yomb trop. loolu sax mën da ngay xalaat que ne ko jekko moo tax mu dem def war dafa entraîné wul wala yooyu mais combat boo ko jógee avant depuis kañ mais da nga war mais boo gisee gars nii VIP yi ngay gis nii mais boo xoolee ñoom combat yi dañ koy négocier rek dañuy bàyyi ba mu des un mois ñu génn taxal seen bopp suuf dem saal vidéo wane noonu nga ñuy def de a après dem bëri ji bokkut ak ñun ñi nga xamante ni matin midi soir dañ koy ànd ak ñun amul tàngaay amul seddaay xam ñun ak ñoom bokkuñu wax dëgg yàlla vraiment ñoom ñu si kaw moom ñoo sooxe am ba pare may ñu booy chance boo xoolee tey ji benn huit personnes ngay gis si kaw wala cinq ñooy bëgg seen biir imagine depuis 2015 ba tey ñoom ñoo ñooy bëri seen biir nangu ñoom ay benn booy chance te ramb ji tool na fa xam tey ku si ñoom yaa ngi dégg Serigne Ndiaye bu Fass général Malika yaa ngi dégg ñoom dut sand ñooñu ay poids lourds gañ ay poids lourds gañ mais dañu war a yëg si kaw dañu war a bëri ak ñoom yaa ngi dégg tey ku mel ne ay Doudou Sané Général Malika ñun dañoo war a yéeg ay goro Sock ñun dañoo war a yéeg bëri parce que toll nañ ci toll nañ ci niveau boobu rek gars yi bi ñu ngeen di may chance foofu ngeen togoon ay franc xam nga mais tey ji fi mu xawee sooxe mooy tey ñoom nangu ñoo may gars yi chance yaa ngi dégg ba pare ñi ngi seen ay kase yu seer yooyu noonu xam nga bëgg yàq làmb ji ñoom ñoo bëgg ñoom dañoo bëgg rek xaalisu làmb ji ba dem seen yoon ñun ñu bañu li ñuy waxee dañuy jàppale man ay association ay Gris Bordeaux yooyu noonu ay ay wax kase laa jàppee yaa ngi dégg parce que yow mënoo jiite ne yaa jiite euh, régulateur an activité waaw ba pare yow ñu dara yoo def yow gisuñu dara yow lan nga fi def Gris Bordeaux lan nga fi def yow nga nekk président des régulateur en activité yow lan nga def pour mbëri lan ga def koo xamante ni mbëri gis nañ seen bopp yaa ngi dégg yow bi ñu demee pare sax bi ñu demee pare bi bi ñu demee pare bi dëru ma rek bi ñu demee pare yaa ngi dégg moom bi mu jël parole nga am fulla ak fayda sax wax ko fa moo Gris maa ngi foon maa yoon pare bi ñuy dem. man ñi ma dégg ñu bari dañ ne bi euh, euh, euh, bi Gris Bordeaux yëkkatee kàddu waxi làmb rek la fa wax laa. waaw non xam nga am làmb mooy jàkkaarloog président yaa ngi dégg di ko wax naan ko mbër yi soxnañ ngi yaa ngi dégg mbër yi bëgg nañ couverture maladie even yaa ngi dégg mbër yi bëgg nañ ay ay ay kër xam nga yooyu dafa terre à terre yooyu président warul xaar sax ku ko wax wax dëgg yàlla man gi ma doon xaar pour mu wax mooy tey jii CNG bi fi nekk yaa ngi dégg ñu xool nu ñu ko defaraatee ramb am nekk fédération lamb si boppam am fédération boppam parce que toll nañ ci boobu lamb du meet suñu culture ga sport bu mag ga nekkul nekkul sport bu ndaw yaa ngi dégg tey dafa jot ñu am fédération comité de gestion pour pour pour kii rek comité de gestion pour comme ça nga daje ay nit rek pour benn de gestion tegal leen mais lamb dépassé na lamb war na dépassé loolu war nañoo dem ba yegg si fédération jamono ji xam nga nga xam ne du lépp lu ñuy def ñoo koy defal suñu bopp mais pas comité de gestion boo xamante ni bi moo ko fi teg xam nga ñun nekk xam nga di di def règlement yoo xamante ne des fois day engagé ñii wala du engagé ñii xam nga ci yooyu nga doon xaar yaa ngi dégg ñu wax si xam nga promoteur sax am nañ ful nga ñoom wax nañ gi ñu bëgg a wax wax nañ ko tey boo xoolee moom dagaagit tey wax nañ maanaam seen soxla yaa ngi dégg mais Gris Bordeaux gi mu waroon wax yëpp yëpp yëpp mais wax ko en fait wax da ngay wax li problème nga am bi yaa ngi dégg góom boo ko bëggee faj yaa ngi dégg da nga siy def alcool def si lépp loo si war a def pour mu faju mais ndax lamb ndax lamb jorul tam mer mi ci soog a dugg sax premier combat bi mu wara beure mu fayeku 1 million ndax lamb jorul tam mu am lu mel non parce que sport yu bari fi dem na ba avancer lu mel non mais wona dépasser sax loolu non wona dépasser sax loolu yow imagine mbeur bu ndaw premier combat 100000 francs ngay fayee depuis kagn depuis kagn yag na yaa ngi dégg mënu fexe ba dépasser mënu fexe ba innover xam nga promoteur yi moy loolu ñam tamit dañuy teug des fois xam nga des fois dañuy bëgg teug lu ngeen neex xam nga mo tax man nga gambu tank que ci federation non ci yàqu ba dem te yàqu bi yàqu bi ñom ñi ci kaw ñom ñokay koy tay ji ñom buñu gor gor góorgóorlu woon japp nga ni gis lépp ko gis mu avancer mboga moko def yaa ngi dégg mais bo bëggee gis ben personne quelques personnes rek di pétu di def fek na ñoo diggante affaire yooyu mënul nekk ñum mbër yi nga xamanteni ñun ñoo ci nekk instant bi nekk ci suñu digg doge yaa ngi dégg mais tank que ñu bëgg ak bobu non li soxé soxla du am gambu nak ku ne xamné sport ga bo xamanteni sport bu metti ga yaa ngi dégg ñun ñu si nekk nii di góorgóorlu mais mooy loolu ñu ngi si bëgg a yàgg heure bi na fekk ñu génn si bu yàgg bil waay wagaay mais xoolal ba heure bi yow 5 millions sax mënoo koo fayee ko. am na solo ñu ñëw ci yàgg comme que li nga waxoon demoon nga pale parce que dañu dañu déggaat tam mbëri am na ñeneen ñu ciy demaat pale muy deuxième fois mu defee seen conférence de sa presse ba pare tey euh, ndax jàppoon tam ni état bi am na lu mu jox mbër yi VIP yi ndax coow li bari na ci ñoom. man de wax dëgg yàlla jàpp ma loolu ne ñoom seen conférence de presse boobu sax yàlla xam na ne su ma waxee dëgg rek seetaanu ma ko <coughs> ay quelques images rek laa si gis seetaan sa def ma ko yàlla xam na ko wóoruma ndax dem nañ demoon nañ pare wóoruma ndax jox nañ dem sax xaalis biir laaxi waraaxi yàlla xam na ne loolu yëpp dara wóoruma su ma si amoon lu ma wóor moom peut-être ma wax si amoon na lu ma si ngaañ bu fekkoon dem nañ bu fekkee dem nañ yaa ngi dégg ñu jox leen ñoom nga engagé yaa ngi dégg parce tamit bu ngeen neexee de am nañ ci droit wax dëgg yàlla parce que réew mi réew mu démocratie la man damay bañ sax ku ku ku leen di ŋàññi ci ñoom bu ngeen neexee ñu dem mais bu ngeen wooyee ñu dem tey bu nee kat damaa soxla diw ak diw ak diw yaa ngi dégg mais dañuy dem. parce que ay Balla ba ci Balla lu mel noonu nee jox ñu leen ak yu mel noonu ndax namuñu loolu. waaw mais gis nga mais tey jii ku mel ay Balla Gaye ay Modou Lo dañoo man bi ma déggee ñu naan ay 5 millions ma ne non ay Balla Gaye Modou Lo romb nañu ay maanaam ay 5 wax dëgg yàlla xam nga ñooñu du ngeen téye si benn table ndax ndax ay 5 millions wala nangam ak nangam parce que xam nañ ne mais làmb ji ñooñu yoruñu ko làmb ji ñooñu yoruñu ko gaa yi ñu ngi wax mais làmb ji ñooñu xam nga yoruñu ko bu fekkee nag lu ñu leen di tuumaal la xam nga dëkk bi tey jii dafa bëri ay ay ay ay ñoo xamante ni si net bi la ñu nekk rek di manigancé di wax lu leen neex di bindu lu leen neex bëri na si yaa ngi dégg tey jii ñi ngi fi gis ñuy opposé ñii ñëpp yaa ngi dégg au début dañoo raat joxuñu leen yaa ngi dégg au début dañoo raat joxuñu leen yaa ngi dégg ñu ñu ñu ñu ñu jaaree fa di wax ba mëntuñ dellu ginnaaw yaa ngi dégg bëri na man ngi ma gisee ni man du ma Macky Sall du ma Sonko yaa ngi dégg man donte dama yëngu ci politique parce que chef de protocole sécurité ga bu Ndiogou Sow yaa ngi dégg mais man moom ngaa Ndiogou Sow gaa àndal man mooy sama président mooy sama lépp sama yoon néew ci Sonko sama yoon ñoo xam. ba bokk ci nervi même côté boobu non côté boobu tam gaa dañ siy juum parce que. nombori giso gisoo si benn mbër bu yor arme man de vidéo yi ma gis gisuma si amul ben mbër bu ma gis nga yor arme donte na gis na ay mbeur yo xamanteni mais tayji yow nga nek ministre ya ngi deg nga deg ne ñi ngi attaquer keur ministre mais di nga out ay di nga out ay garde rapprochée ñoo xamanteni ay gros bagage manam am sen carte man gi may def ni tayji man garde rapprochée may def dama am diplôme dama def formation fay sama xaliss am diplôme té kenn du ma ko yàqal tey su liggéey tey jii fi may liggéey tey jii ku ma fekk ne dang koy tal wagan nga ne dang dang fay sanni xeer ma mën ak yow dañuy gayante yaa ngi dégg parce que fa ngay liggéey yaa ngi dégg dañ may fay par weer yaa ngi dégg yow yow yow fi ngay dem di fa liggéey par weer doo nangu kenn di ko yàq mais tey di nga gis tey benn ministre wala benn homme politique boo xam day jël ay nit ay groupe gars yoo xam am nañ carte garde ga procès ñu xam ñuy liggéey ñuy garde seen kër gars yi bëgg fa attaqué ñooñu tamit génn résister ak ñoom ñu foto leen vidéo yi dugal si ne ne xooleen nervi yi di yàq image u gars yi vraiment loolu tam dafa ñaaw nañ ci wax loolu noonu dafa ñaaw wax dëgg yàlla loolu man dama ko ñaawul trop sax waxuma nag ñi nga xamante ni da ngeen a jël yaa ngi dégg pour ñuy ñu pour maanaam dajale ngeen rek na ngeen dem ngeen xeex ak askan bi te loolu yaakaar naa ne kenn du ko def dajale ay nit rek na ngeen dem ngeen xeex ak askan bi bu ngeen bañ yow tey boo dajalee benn dix personnes da ngaa mën a dajale benn vingt dix wala vingt personnes ñu génn naa dañuy xeex ak mbooloo loolu mënul nekk c'est juste que mbooloo mi ñoo ñëw bëgg a yàq wala am ay sàcc yu si rax wala affaire yu demee noonu bëgg a yàq jàmbur fekk mu am ay garde corps yu fa ne gaa yi génn résister ñu foto ngeen dugal ngeen si net bi ne ne ne ñi ay kii man de génnuma xeexuñu wax dëgg yàlla fii Malika ku ne xam ne ne amul coow amul dara yaa ngi dégg man ñoo ngi soog a li ma xam mooy ñu xëy dugg si oto xëy dem liggéey ñibbi si ñëw toog jeex na man loolu laa xam daw daw ma si ay activité politique dew ma si ay yëngu-yëngu daw ma sànni xeer xalaatuma ko wax dëgg yàlla sama liggéey gaa dama sama njaboot yaa ngi dégg suma démé di sax ñu toccom bop ma teud feebar du kenn ko mo fa fekk na ma am dépense ci si bi wala nangam ak nangam lépp lu may am maa koy sam bop peut être dama am ñu yaakar ci man yaa ngi dégg man ci gi ma nekk non kenn duma ci kenn kenn bo ma ci ŋàññee fi ba suba ya xam yaa ngi dégg man loolu nga wax man fi ni tay ji dem nañ fi élection locale fi élection locale mais sama waa groupe rek ñi may andal yaa ngi dégg moy gi ma ngay wax né mbeul du influenceur tay ñi may andal tay ji sama waa groupe ak sama gaay yi ngi di mais ñi dëkk marika fi ñi dañu dem far fi ñi and ak ñi and ak ñi te tegoo man may garde corps ñu ko saw yaa ngi dégg mais xoro dañuy daje guddigi buñu bu dañuy daje guddigi ñew tok toog waxtaan débat affaire yoy ki faral ki ki faral ki do influence ken wax dëgg yaaga amna solo carrière Ama balé no xagé ak 5 ans yim tok bëréwul jafa manam jamono ji 5 ans yim tok toog jumul depuis poids saw la mu mujjee bëree boobu léegi tok na amul combat don dëkk sax gaay nga wax ay combat mo giru bodo doo ya ñaar yoon mo mo lu noonu Euh, carrière am noo gisee jamono ji. waaw xam nga tey jii Ama Baldé yàlla na ko yàlla def jàmm suñu grand ga grand bu baax ga te champion ga tamit ndaanaan ga xëy na ndogal yàgg ga mu toog cinq ans tey jii bëriwul xam nga te yàgg xam na ne man gëm naa ne nekkul coobareem moom bu sañoon tey jii chaque année mu bëri Ama Baldé ku ko xam-xam ne mbër ga wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaan ak yàgg carrière bu extraordinaire gi mu bëgg moo xam si carrière am yàlla na ko yàgg defal parce ndaanaan grand baax moom xamante yaa ngi dégg sekk nañ nuyoo sekk nañ jàmm rek su ma ko romboon fii dinaa ko nuyu sekk naa ak moom jàmm daal xam nga noonu nga demee mais nag ndogalu yàlla du man noonu nga ko gisee. mais mënul maa ngi ko comme genre maanaam compétition ak par rapport ak bi nga xamante ne moom lay jëm muy diggante ma Gris wala diggante ma Modou Lô ndax mënuñu cee ñàkk maanaam compétition. Mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne ñu ngi su ma jumul Gris ko mujjee compétir Modou Lô ko mujjee compétir. waaw ah non loolu nag du si dara du si dara Ama moom mi ngi entraîné mi ngi entraîné mi ngi contact parce xamne ne fi ni nga nek fi di entraîné mi ngi fi si dinu Malika fi di entraîné chaque jour wax deug yaaga mom mom bokku na ci mbeur yi nga xamanteni non da ngay day ak ñom ci maro bi tout temps gis mom moom Ama Baldé Modou Lo ngi deg ñoo nek sportif ñoo am combat ak am combat da ngay di gis ci geejju ñi entraîné muy norme muy nawet da ngay di gis ci geer yi dañoo fonk entraînement ma sha allah bir gaahi wa gaahi wa taagaax yi yàlla xam ne ne ñaar ñooñu moom non dama koy seetal si entraînement mom ay ñoo ñoo ay deug rek ay franc wa deug yàlla entraînement mom du ci tiaxan yeah bëgg naa ci yow tàggato waaw maa ngi sant yàlla rek di jóge si yonent bi di sant sama ñaari waajur xam nga di di di di di di di nuyu waa Malika yëpp fi nga ma fekk nii di jégalu bu baax baax baax te di nuy sama grand bi ma fekk nii muy Fallou xam nga ñoom Ramin Saw sama boy sama papa Ndiogu Saw di nuyu tey waa Malika yëpp yëpp yëpp képp kii bëggee Buldozer maa ngi ziar bu baax di nuyu famille omarienne bi xam nga di di di nuyu bu baax baax baax waa diaspora bi képp kuy bëggee Buldozer maa ngi nuyu bu baax baax baax di nuyu sumay saf yaa ngi dégg suma grand dun xam nga ñoom am di parcelle ñoom petit suma grand bamba sob gars yëpp maa di béggee bu baax baax baax kanji maa ngi koy nuyu bu baax baax suma grand kanji nga xamante ni moom nit ku baax nga borom ETDR xam nga nga xam ne moom nit ku baax ñu ngi koy béggee bu baax baax baax di ko ziar di ko ñaan ak yàgg yokkute parce que moom nit ku baax nga vraiment gis nañ dimbale waate bi muy dimbale waate xam nga vraiment ñu ngi koy ñaan ak daal yàgg defal ko jàmm vraiment homme social la ñu ngi koy nuyu bu baax baax baax moom suñu grand boobu nga xamante ni mooy kanji bëggam ETDR ñu koy bëggee bu baax a baax a baax